teuru làmb ji di Gaston Mbengue yëkkati na ay kàddu jëmale ci élection yi di wax ni rek su benn Bokk Yaakaar tolloo ci ay jafe-jafe jamono ji workat yi ñoo ko waral nee na Macky Sall ñamuñu àndal ñoo ko wor ay politiciens lañu yoo xam ne liggéeyuñu te duñu ko wax dëgg ba tax na rek mu ne Macky Sall dafa soxla yeneen i collaborateur ku ci mel ne Boun Abdallah Dionne ndax liggéeykat la muy woyal naan kujje gi dañuy jéem a manipuler askan wi ci élection yi di wax ni rek su benn Bokk Yaakaar tolloo ci ay jafe-jafe jamono ji workat kat yi ñoo ko waral nee na Macky Sall ñamuy àndal ñoo ko wor ay politiciens lañu yoo xam ne liggéeyuñu te duñu ko wax dëgg ba tax rek mu ne Macky ku ci mel ne Boun Abdallah jonn ndax liggéeykat la muy naa naan ku gi dañuy jéem a manipuler askan wi. Wally Ballago Seck ma nga woon dibeer gi weesu ca Vogue na mu ko tàmm defee bu amul tournée ci biir réew mi ak biti réew mi bu nu sukkandikoo ci ay xibaar yi sunu ay naataango